ñu yegg sa yéen jaajëf Maodo Ndiaye ñu yegg sa yéen ci gis-gis ñu ngi ci euh, ligne bi ak euh, commissaire Cheikhna Cheikh Sadibou Keita maa ngi lay commissaire. sant bu baax a baax maa ngi lay fay. commissaire de police divisionnaire à la retraite bu dee euh, Benoît Tine mu ngi ci ligne bi moom tamit ñu ngi koy nuyu monsieur Benoît Tine. oui ma ngi lay déglu monsieur Ba. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax waaw di di enseignant chercheur ca université Assane Seck bu Ziguinchor doon tamit criminologue dañ ko ak commissaire. Euh, Cheikh na Cheikh bu Keita alors euh, commissaire gis nañ ni euh, fan yi barki démb Louga gis nga xale bu jigéen bu ñu fa faat am ñaar fukki at barki démb ci HLM Grand Yoff ku ñu faataat di tam ku jigéen ba tey am nekkoon étudiant bu doomu kongo dafa dal mel ni du ñu rek toog ayu bés te dégguñu faat nañu bakkan fii ci Ndakaar wala biir réew mi ñàkkub kaaraange ci mim réew naam ñu ngi def ay jéego waaye dafa daal mel ni teel wàllu Guinée ay loolu koy mën a waral. waaw du ma dellu waat ci terme yi expert bi ngeen invité intervenir sànq bu muy wax ci tubaab hmm. damay yem rek ci nii pour loolu yëpp amee euh, à chaque fois que phénomène yu mel nii am dañuy seet ci jamono ji mu xew ci environnement bi mu xewee lan lañ ci mën a jukki ba comprendre nii

ñu am une crise politique am ay euh, ay environnement bi nga xam mhm. désordre fii mu euh, encore mhm. crise ci quartier mhm. crise économique bi nga xam jeunesse bi covid bi encore phénomène bi amplifié wu beaucoup d'autres causes exode rural euh, bi gën wu bi famille yi ak yeneen yi ndax seen ay soxla gën a abandonné encore xale yi ak surveillance quartier yi. Mm. nit ñi génn ci mbedd mi pour dund fa li nga xam ni moom mooy seen ay frustration mm. seenu ñàkk ak seenu wutin yi nga xam ni mën na dem ba ci rey. Mm. loolu moo indi contexte bi loolu moo indi ñu xam ñu mën a expliquer ni phénomène yooyu yëpp su taxawee euh, crise bi day grave du tere nag ñu mën a xeex ak moom. jaare ko fan. boo xeex bi yëpp mu ngi ci li nga xam ni daf la tiim nga xam ni mu ngi fii te day gaañ su ñëwee da nga koy waajal muy prévention. dinañ ci ñëwaat dinañ ñëwaat hmm? ci prévention boobu. Euh, commissaire dinañ ci ñëwaat léegi dañu jël Benoît Tine mi nga xam ne enseignant chercheur la ci université Assane bu Ziguinchor di tam criminologue. alors monsieur Benoît euh, yow mii di yëngu ci wàllu euh, criminologie liggéey boobee lan ngeen ci nemmeeku ak est tam parfois doo leen toog ba am njàqare naam sax ci loolu ngeen di yëngu. waaw maa ngi lay euh, fay euh, mm. monsieur Ba. di rafetlu jootaay bi nii di nuyu mm-hmm. sama naataango euh, bi ma bokkal waxtaan bi. Mm-hmm. pour wax juste que ne criminalité bi daanaka soo waxee règle. parce que mm-hmm. am na sociologue yu ne crime bi c'est normal c'est un phénomène normal dans une société. foo mënti dem day am des formes de criminalité. mën nañ bañ a yegg ci ay boobu nit sax mais loo gis am na loo xam ne règle boo gis am na ñoo xam ne dañuy accepter dañuy nangu di ko topp di di ko di obéir ci règle yooyu noonu hmm. am ñoo xam ne tamit ñoom dañu ci dañu ci sukkandiku dañuy préféré def leneen hmm. dañuy dem ci leneen dañuy ñëw préféré donc désobéir à ces règles là loolu mooy indi criminalité hmm. ñu ne par exemple il y a un idéal idéal boo xam ne pour euh, être riche par exemple dañu ne il faut nga liggéey ah travailler à la sueur de ses fronts njàng ba am ay liggéey et cetera mais am ñoo xam ne ñoom ils n'ont pas les moyens euh, euh, valorisés par la société c'est-à-dire éducation bi c'est-à-dire ñoom ñu def ay formation et cetera ba yegg fi ñu war a yegg am seen lijaasa mën a liggéey am ñoo xam ne dañuy bëgg dañuy euh, accepter l'idéal proposé par la société mais sauf que les moyens proposés par la société ñoom xëy na ñoom moyens yooyu noonu ñoom amuñu ko hmm. donc dañuy euh, malgré que amuñu ay diplôme dañuy jéem a xool yeneen voies yooyu la ñuy wax les voies déviantes muy ritualisme muy euh, la rébellion oui, euh, euh, le la violence euh, délinquance etc. Hmm. donc le moment où on voit ci cause c'est tout à fait normal que nous disons que de temps en temps c'est comme si on dirait que c'était cyclique cyclique c'est-à-dire que de temps en temps dañuy toog di ne di gis une série une série de meurtres amoon fi yàggul dara ñong ngi koy à temps yi passé hmm. donc ça veut dire que c'est tout à fait c'est dans l'évolution normale d'une société que de temps en temps mu am yoy non pour que nit ñi gën a pour nit ñi ah ah y a un problème mais yéen ah, mais mais ci sen wàll yéen yan xeetu liggéey ngeen ci def pour vraiment ñu mëna a mottini ko yu mel

mais forme de criminalité ak sinébar euh, bi sinébar hmm. bi lien boobu noonu moom c'est pour confirmer des études yoo xam ne def nañ ko hmm. euh, dans ce domaine là depuis longtemps hmm. urbanisation bi tamit dëkk yi léegi am ak exode rural ñëpp ngi bëgg a dem dëkku taax suñu demee foofu dañuy dajaloo ce qu'on appelle la promiscuité urbanisation bi loolu yëpp day waral aussi euh, donc muy am ay ay xeet yooyu noonu le fait que aussi jamono jamono ji dafa naqari dafa metti mais gis koo xam ne xëy na bëgg na am liggéey dafay euh, euh, def lépp pour am liggéey mais du ko du ko du ko mën a du fa mën a yegg. bu yàggee mu fippu. voilà muy su yàggee mu fippu. mu hmm. xool ah, ñu ne ko ah voilà soo defee nii ak nii xëy na di nga am xaalis et hmm. euh, muy indi ay braquage yi wala nit ki moo ngi tox cigarette wala moo ngi tox drogue ba ci yàgg amul lu mu koy jëndee donc hmm. il faut que à un moment donné. soxla na dosam bi nu muy def mooy dem braqué. su jaayee lu am lu am doole lu am solo. ba pare day dem dem braquage. maa ngi ñëw maa ngi ci xool ndax yëf yi dafa gën a yokk ci at yi weesu ak nar a jëm ci at yi ñu dëgmal alors euh, commissaire sànq wax nga euh, prévention maanaam euh, prévention boobee yow mi nga xam ne sax dafa màcc wàllu sécurité fu ñu fu ñu war a mën a jaar ba sax buñ ko fi jël lu ñu wàññi ko bu baax a baax. prévention bi dañuy xool tawat bi lu mu doon nu mu toll ak saxoom fan la. ci nit la dañuy renforcer condition wu prise en charge nit ki depuis bi mu nekkee xale parce que faut lay les germe de qui pour que mën a ci situation de déviance c'est-à-dire situation yi dem ci mbedd mi def lu hmm. suñu renforcer éducation bi encadrement bi famille Nous ñu renforcer que sensibiliser famille pour que ñu jóge une place renforcer yi tamit éducation mais initiation de faire nit ki nga xam ni dañ naan lii kat su jaaree ci yoon wi dina nek nit ku à 90%. Si hmm. suñ fa ñu yeneen feebar yi condition yi nit ñi dundee ñu faj ko ci biir dëkk yeeg ñoom seen yu mel noonu suñ ko jógee ñu indi ay faj-faj ci li nga xam ni moom mooy euh, tawatu nit ñi du tere nag alkaati yi seen bopp nag ci nga xam ni pàcc bi nga xam ñooy taxaw tout le temps bu feebar bi ñëwee taxaw def prévention saa gën a jege nit ñi ànd ak ñoom di leen informer di leen wax ak ñoom wone ni ñu ngi fii génne seen ay jumtukaay taxaw bañ a tëj tëdd ba dara jóg ñuy soog a génn suñu defee noonu je crois que ni dinañ am environnement bi nga xam dafay assiniru ñëpp ñi nga xam ni nekk nañ ci war a bi dinañ gis lu leen ragalloo wala ci ñi mën a perturbé nañ leen teg loxo teg leen euh, làq hmm. leen euh, jant bi balaa ñuy dellu si waat di def leneen hmm. muy gaañ nit ñi. très bien alors ñëwaat euh, ci kii di Bonabattine alors <clears throat> criminologie yéen ci seen statistique ndax xel mën naa dal. ci at ñu dégmal ak vraiment ndax mën nañ am yaakaar ne vraiment yëf dina dina wàññeeku wala sax mu dañ fi dañ moom euh, euh, naam mënagul ne waaye euh, fu ñu war a mën a jaar daal bay fi wàññeeku waaw dal jeex moom mënul mënu mënu fi jeex hmm. parce que c' est un phénomène hmm. normal dès que nga yaa ngi wax ay règle ay tëralin automatiquement am na ñoo xam ne dañ koy nangu am ñoo xam ne duñ ko nangu hmm. dañuy préféré def jël yeneen voie en matière de progression c' est vrai que naam ci suñuy recherche ce sont des recherches plus qualitatives ñun duñu fi nekk pour compter il faut amener euh, une structure boo xam ne centraliser statistiques yi jëm ci wàllum wàllum violence délinquance et cetera li ñu def mooy de façon générale dem dem police récupérer données yi fa nekk gendarmerie ci armée bi ak hmm. feneen ci hôpitaux yi hôpitaux psychiatriques et cetera ak li ñuy ak recoupement yi def à travers la presse donc y a pas une euh, benn outil statistique boo xam ne c'est euh, c'est centralisé bu bu bu ñu ci fu ñu mën a sukkandiku pour ne euh, que pour wax ne violence yi dafa yokk wala dafa wàññeeku hmm. mais le fait ñu ciy wax

yoo xam ne réseaux sociaux tamit dañ fay gis ay scènes ay images yoo xam ne yooyu aussi ça ça véhicule la violence dañuy gis ay impunité cas yi passé koo xam ne dañ ko gracier alors que dafa rayoon nit hmm. impunité yooyu noonu tamit euh, dina tax ba euh, phénomène de violence di gën a di gën a yokku le fait que aussi ci benn dëkk ci dëkk yi manque d'éclairage le fait que c'est vrai que en criminologie hmm. on parle euh, de de de de ces de ces choses là mais foo xam ne amul éclairage euh, xëy na aussi ça attire euh, une certaine forme de violence ak bâtiment yi gis nañ ko ci cas yi passé bâtiment yoo xam ne c'est des bâtiments en chantier mmh. wala bâtiment abandonné et cetera yooyu yëpp mmh. day indi euh, prolifération de bâtiments abandonnés yooyu noonu day occasionné l'occasion fait le larron day indi ay xeetu violence yu mel noonu noonu mu ngoog mmh. ah ah voilà juste euh, montrer que fii Ziguinchor en tout cas ñoo ngi ciy def liggéey bu takko takku takku. Hmm. xëy na ci euh, euh, fan yi di ñew nañ ci nañ publier ay documents yo xamné dañ ci gëstu ay ati at pour montrer pour xol pour wax fan lañ toll fa ana way Sénégal en matière donc de délinquance de criminalité de façon de façon générale. mu ngok Benoît Tine enseignant chercheur à université saint Seck bu Ziguinchor doon tam criminologue jajeuf ci nangu bi nangul waxtan bi lé waaye itam jaajëf Cheikh na Cheikh Sadibou Keita. jërëjëf jërëjëf commissaire jërëjëf ci euh, vraiment nangu bi yéen ñaar ñëpp euh, RFM di leen jaajëfal bu baax a baax waaye itam jaajëf bu baax a baax technicien Aliou Ba di tam jaajëf bu baax a baax Yacine Pouy mu nekkoon ci digital bi mbokk yéen jaajëf ci teewlu bi mu nekkoon xibaar yi asalaamaaleykum.